doomu alkaati ñu ngi réagir ca camp Abdou Diassé ah euh, Safia ak Mama Diatta madame Diatta waa camp Abdou Diassé ñu ngi leen di béggee bu baax képp koo xam ne sa sa am nga parent boo xam ne alkaati la voilà ndax dafa metti dafa naa war jeex na kon dañu lay bàyyi nga tëj ñun nag ñu tàggoo Bessél a àjjuma ah waaw mu may ñu bu tàng ah bu tàng nga bëgg <laughs> merci ah. alors gërëm équipe bi ma àndaloon depuis lundi ba tey ah, euh, yeewu leen ngi euh, bis bu jot ak couleur am ajjuma bi nag li may couleur euh, yeewu leen bi incha allah lundi ñu àndaat lundi nag dina am ay surprise ah dina am show bu mag boo xamante ni yéen la ñu koy jagleel dès 7 e en plus ñu ngi gërëm suñu ay partenaires sponsors yi fàttewuñu centre d'appel Jupiter mi ñuy dimbali ci enveloppe yu duun gërëm itam BMW gërëm itam Bouba ci production bi maa aussi c'est itam ci réalisation bi ñu ngi gërëm bu baax équipe maquillage tout le monde ku lim da ngay merci à tous on se retrouve man ak team lundi incha allah 7h ba 11h ñu bàyyi leen ak euh, Ndiogu Afia mu may ñu lu tàng loo xam ne dañuy jóg rek euh, euh, tëjaale ko Dakar tey ba altine incha allah. dëgg la Pape Cheikh balaa ñuy ñu remercier la. remercier ñi nga àndal remercier Mao. Uh-huh. waaye sant TFM. jërëjëf ñoo ma njëkk defal spécial émission Ndiogou Afia. wallaahi wallaahi mu doon loo xam ne lancé nañu bu baax. si le plan international macha allah TFM yàlla na yàlla dolli ndam. amiin bëggee képp kuy soppee Ndiogou. Uh-huh. soo ma ko mayee ma sant ki ma jox ma sol. ndeysaan soo nu ko mayee. muy Modou Mbacke Abin Moustapha Broderie. waaw kay ndax daf ma ne foo sikar maa lay jox nga sol. di ko ñëw voilà man tam sama écritel bi maa aussi c'est bu ko fàttee. na bi maa aussi ah. c'est moom sama maa moog di bëggee suñu waa kër yëpp alaaj mhm. naa mbay jibi mbay ba ci suuf maire Ami Diouf jaajëf kuñ limul tam ngeen baal ñu àq télé moo doy waar wallaahi mais bi ñëpp a ngi ci sama mbokk sama sang yi ñoom sëñ maneel waa kat tilaala laala faal ñëpp santaat sëñ aafiya di bëggee ñëpp waa marché aselem ñëpp adduna bi yëpp ok waaw njëm Touba xayra ayta kulayto pato ben kulayto pato kula nonu bade nari janna kuba khaira bade kuba khaira afia sig ave ba kedo mas bumi takale taka pa ki kay doxale bokki jam duram ci yow مسجد رسول الله